waaw mukk la di baal yàlla mooy yuuru ak yàlla. parce que dégg nga ko ñaan di suñu borom may ñu amale bismillah kon tey defalee ci alhamdulilah alamin nekk ci ñun jàng baax sàll fa la xam naa si ala ko ala nekk

yoo xam ne yu ñu ràññee lañ si euh, taxawu lislaam si Yoff mooy APECSY yi nga xam ne kër APECSY la ñu nekk tey mu sekk ak Al nga xam ne libaas nay jën li nga xam ne moom daana ko njaaxaanaay la tëddee parce ñaari association yooy yëpp euh, daf si am ci ñooy comme ni ñu koy defee at mu nekk te comme ni ma ko waxee woon sànq yàlla may leen ñu yàgg ko def ñoom ñooy indi rek seen contribution ak yéene si euh, ndaje événement bi nga xam ne moom la ñu dëgmal muy ñëw muy appelu Seydina Limaamu Laay ay salaatu wasalaam te ñu dëgmal ko euh, yàlla may ñëpp fekk ko te dara. te suñ ko talee tam am pas-pas ah, bu yéene yi nga xam ne moom lañ si yàgg deme yàlla may ñu mottali ko maa ngi dellu nuyu ñépp ñu fi teew di rafetlu ndaje mi di jéggalu encore ci samay kilifa yi nga xam ne ñoo fi taxaw su ma sañoon ku nekk ma lim la sa tur jox la sa wàccuwaay et xëy na pour des raisons de Euh, pour temps bi rek ñu may ma ma nuyu ñëpp képp ku fi nekk rek ak noo fi taxawee jox nañ la sa wàccuwaay te di xaar vraiment li nga xam ne moom lañu ubbi tey jii dafa nekk waxtaan woo xam ne seenu nañ si contribution ku nekk sans plus tarder euh, saltige ñu ngi lay jox sa wàccuwaay ku fi taxawal yoof ndomb tànk yoof yépp ñu ngi leen di jox seen wàccuwaay mais léegi comme balaa ñuy dugg ci waxtaan wi dama bëggoon rekk jox kàddu euh, maam Ibra Gueye mi nga xam ne moo représenté APECSY pour que mu dalal mbooloo mi au nom de APECSY mi nga xam ne président Serigne Mbaye Diène mooy président bi mais ñoom ñii ñoo fi nekk nekk ay tànkam nekk ay ay bëtam ak noppam di jëflante jëflante bu rafet ak population yoofoise démb rek la jóge woon laayeen def yóbbu contribution wu yoof parce ñoom léegi bu ñuy wax duñu ne sax APEX dañ naan yoof parce que yoof ko xam ni mu tëddee xam ne rakk topp mag la ndombal tànk yi ak képp ku fi am cër yi ñoom lañu ñu àndaloon démb yónnee yóbbu contribution yoof ci seen yëfu bopp donc président Maïbra sans plus tarder maa ngi lay jox kàddu gi pour que nga dalal mbooloo mi. Euh, euh, euh, di leen baalu àq ndax xaar bi wax dëgg yàlla waxtu wi ñu waxoon romb nañ ko waaye nag du suñuy coobare ñu ngi ciy jéggalu ah kàddu gi may jël nag kàddu gi yoof lay doon. parce que wax nga aji APEX wax si instance dafay neud ci biir yof lañuy wax kon nak yof mu ngi dalal bopam yof mu ngi leen di dalal ah ñu sant yalla bu sant le 26 avril 2017 yàlla def na daje woon nañ fi imam moom la yàlla xéewale woon mu jiite woon jate bi waxtaan waxtaan wi ñun ñëpp wax dëgg yàlla ñu gis suñu bopp yàlla yàlla fay ko euh, ñu ngi kër APECSY APECSY nag bu ñuy wax ci mbiru Yoff donte dañuy modd ci biir waaye du ñu ñàkk di ko wax parce que kaddu bu ñuy jël kaddu comité directeur bi comité directeur bi nag président Serigne Mbaye mu ngi si tukki yan yàlla may ko jàmm ah ñun ñi fi des itam yàlla yàlla yokk suñu sutura ñu ngi dalal ñëpp ñu ngi dalal ñëpp ci li nga xamante ne moom la ñuy def ndaje bi nag yàlla dafa dogal daaw si kantanu yàlla am nasih moo ko initié woon moom mu nekkoon en partenariat ak APEXI waaye ren dañu yaatal parce que mbir buñ koy teg muy yokku muy avancé danañu dem ba wax dëgg yàlla ku si nekk mën nga see gis sa bopp ba tax na ren jii biñ koy euh, biñ koy waaj pavillon bi ak thème bi nga xamante ne moom la ñuy jël duñ si xuus dañuy bàyyi ñi nga xamante ne ñooy yor yi ñooy dugg ci tem bi ñun dañuy wax rek ñi nga xamante ne dañu nekk en partenariat ak ñoom ci li nga xamante ne moom moo nekk ah euh, al nasir moo jiitu parce que ñoom daanaka ak APEXI ñoo ko initié woon daaw ba am na sax li ñu ci taxawee woon ba defoon nañ ay euh, ay yoo xamante ne am na lu am na sax lu rëccoon yenn taalibe yi mooy ñi nga xamante ne euh, ñoo fi nekkaloon wax dëgg yàlla seen alimaamu alayhi salaam ci fi nga xamante ne ñoo ko doon toogal defoon nañ si ñoom yëpp seen ay nataal wax ban période lañ fi toog ñu bëri euh, wax dëgg yàlla teewlu ñu ko woon mais plaquette boobu APEX ci defoon wax dëgg yàlla daf leen fàtte woon lu bëri ren incha allah plaquette dana am si kantanu yàlla bu ñëwee rek la ca nekk ci biir xëy na nit dinañ ko xam ma dellu si rek si ñi nga xamante ne ñoom la ñuy àndaloon partenariat muy Al Nasir muy groupement centrale des Layènes muy vision groupe bâche étudiant Layène ak al iwatu ñoom li nga xamante ne ñoom lañ defal en partenariat pour euh, li nga xamante ne moo def lii tey yàlla yàlla yàlla may ñu fekke ak tal euh, li nga xamante ne moom la ñu sumba mébét mi ñu ci am yàlla ko yàlla mottali ñu leen dalal ñëpp ñuy ñaan yàlla vraiment ñu ñu am dégg fi loo xamante ne wax dëgg yàlla dañ koy ko ay ati at incha allah. te mottali nga ko groupement centrale des Layènes kon ñu ngi rafet lu seen taxawaay vision 129 groupe bâche ak étudiant Layène al ibratu ñoom ñëpp dañoo fekk si te yéene bu rafet bi nga xam ne AFPEX si ak al nasix ñoo ko tàmbali woon jërëjëf président kon bu loolu weesoo ma jox kàddu gi Abdou Gueye mu wax

kontaan nañ loolu ñu ngi la ci gërëm di leen sant di ñaan yàlla yàlla affaire yi gën dem ci kanam kanam mu nag dama mënul wax noonu mais macha allah sama xol seet na Al Nassir seen xol seet na ñoom Aliou Diakhaté ñu ngi fi mooy secrétaire général président ak euh, de la mais kontaan nañ bu baax yàlla yàlla rafetal yëpp merci beaucoup. arrondissement bi sax léegi ñoom ñëpp ñooy dalal euh, ay gan. si si ndaje moomu moo tax APEX it fan yi yëpp tam mu ngi doon waxtaan fekk naa ndaje moo xam ne ñu ngi naan naka la ñuy def ba nga xam ne dinañ gën a mbir mi seen bopp à travers les comités de gestion ak ñi nga xam ne ñoo ŋànk quartier yi foog naa loolu initiative bu rafet la bu ñuy saluer di ñaan yàlla mi dara teewul yal na yàlla mottali ba yéene ji matale bu loolu weesoo maa joxat jox kàddu giñ leen jox nii moo tënk waxtaan wi naka lay tëddee kon imam Mbaye Bass encore une fois ñu lay delloo sa wàccuwaay parce que daaw yaa ko defe woon mu rafet ñu delloo la ko mais comme dafa am cadre boo xam ne ndaje mi foofu la tënku mu am ay yoo xam ne moom lañ ci séenu ak luñ siy waxtaane ak jeexital yi nga xam ne moom lañ ci séenoo nañ la ñuy fexe ba wasaare ko ba nga xam ne képp ku si war a jàpp di nga si jàpp loolu mooy terme de référence yi nga xam ne moom lañ leen jox si tubaab ma jox as mu tënk ko rek ci kàddu yu néew pour que ñëpp am même gis-gisu lan moo ñu dajale si table ronde bi as vous avez la parole. teesu li nga xam ne mooy note de cadrage rencontre bi à travers les termes de référence. thème bi nga xam ne moo ñu dajale fii.

di am ay références yoo xam ne si la ñuy sukkandiku pour mën a dox lii nga xam ne noonu lañ ko bind ci kayit ne noonu lañ war a doxee bu ngeen xoolee thème bi nag ak lii nga xam ne mooy yittee jamono mu jëm ci wàllu bonne gouvernance publique wala sociétale d'une manière globale da ngay gis ne ñun ñëpp ci bànqaas yi ñu nekk ci kuréel li ñu nekk ci fa ñuy yeewoo fa ñuy yëngatoo ñun ñëpp ñooy sàkku am système de gouvernance boo xam ne fay teggu ci yoon jaar ci yoon loolu njariñam mooy ku ci nekk la nga yittewoo la nga yelloo danañ la ko jox ci anam ba mu gën a kenn du ci indi ay laxal loolu nag bari na ay banqaas muy yamale muy koo gis nga def ko sa nawle muy li nga xam ne mooy yoon yi tëral ñu respecté ko li nga xam ne mooy luñ la sant ci société bi nga war ko def nga def ko de façon désintéressée ak lu mu laaj dépassement ak yu ni mel moom la ku nekk war a def su mbooloo mi dajee ñu mën a am li ñu bëgg ci société bi mais di ngeen gis ne thème bi dafa ñëw ci équilibre ak juste milieu muy bañ a xaabaabal muy yemale yi nga xam ne moom lañ jàpp ku ci nekk ci wàll wa nga nekk boo ci tolloo lii dana tax société bi baax moo tax bii APEXI ak Al Nasir gisee thème bi te boo demee ci diine l'islam à travers le Coran alxuraan dinga ko ci gis ci budul benn du ñaar foo xam ne fii tout à l'heure imaam dana ci ñëw kii di sunu maam Seydina Limaamu Laay al-Mahdi luy sur sarmo yi nga xam ne bàyyi na ko fii ñi nga xam ne ñoo topp ci gannaawam pour war ko war roy yoon wi nga xam ne moom la moom la xàll budul benn di ñaar ñëw na ci di ñaax doomu aadama yi di ñaax taalibe yi pour que ñu tënku ci lool nga xam ne boo ko seetee ba ci biir du dara lu dul ndigal bi nga xam ne moom la yàlla joxe. li tax nak ñu dajale fi tay moy buñu ñu ci lolu dañu bëgg képp ku fi ñëw ñun ñëpp ñu àndandoo xalaat li duuf ci nak yëpp nak du xaj ci cin li donc tay amuñu objectif épuiser la question mais danañu tënk li nga xamné ne mooy lii gën a fés ci thème boobu ñu fésal ko parce que loolu mooy li tax ñu tànn ko comme thème ci 138e 138e anniversaire u appel bi bu ko defee ñu fesal ko ba ñëpp ràññee ko ne bu ñu jëlee thème bi lii mooy lii tax ñu tànn ko te lii mooy njariñam ñu fexe aussi ba nga xam ne ñii fi teew ak ñi war a jëfandikoo li ñu fiy wax à travers médium bi nga xam ne moo ko war a diffuser ñu xam ana lan moo ñuy xaar su fekkente ne loolu ñun ñu tëralal jaaruñu ci parce que léeg-léeg nit dana baax mu xam lii ñu koy digal nii su ko deful lan moo ko ciy fekk bu ko defee mu mën a mesurer enjeu yi bu ñu paree nag ñu xool aussi kii nga xam ne dafa nekk patrimoine pour ñun ñëpp muy Seydina Limaamu Laay al Mahdi paix et salut sur lui parce que au-delà di fait que mu nekk Mahdi au-delà du li mu symbolisé yëpp dafa nekk un patrimoine maintenant waxuma rek pour Yoff waxuma pour Sénégal mais mais pour Afrique nan lañuy ñuy ci enseignement yi mu joxal di yeesal li nga xam ne moom la moom moo nekk ci alxuraan ba nga xam ne société bi ñuy dund danañ ci dem de façon équilibrée mu nekk une société stable et prospère lii mooy lii taxoon APEXI ànd ci ak Al Nasir ñu ne danañu ko indi comme contribution entre autres yi nga xam ne ñi ma prédécé ñi ma précédé ci parole bi wax nañ ko donc ñuy ñaan ñi fi teew xel du doy mais bu ñu ko pencoo fii ci table ji ci salle bi lu waaye xam mu baaxe ko askan wi ñu seet la ca gën a rafet ci conduite ki nga xam ne dañ koy gërëm di ko sant muy imaam Mbaye Bass ci taxawaayam ni ko aji waxe léegi ak ñi ma précédé su ko defee ñu jéem ko nataal naal ko ba nga xam ne dana nekk suñu contribution ñu ngi toll ci ñaati édition 4 quatrième édition ñu ngi initié bu jëkkoon dañ ko doon def fële ci centre aéré yi ci topp ñu ngi avancé ba léegi ñu ne nañu ko décaler mu dànd activité euh, activités yi de 48 heures au moins xel daaxul comme ni ñu ko waxtaanee démb bi ñu demee ci kër Baye Ablaye ak euh, Serigne Dial xel daaxul xalaat bu mel ni genre symposium ñu mën ko liggéey parce que nag lii nga xam ne mooy yoon wi mu xàll góor gi ak lii di xew ci jamonoy tey dafay laaj édition bu ne ñuy xool yan màndarga moo feeñ ci jamono jooju ak lan nañu mën a fexe dëppoo ci liñ ñu fi bàyyil su ko defee mu mën a nekk ay joxoñ yoo xam ne dañ koy joxoñ ñii di dund tey ak ëllëg ñu mën fa jaar su ko defee seen nekkin ci kaw àdduna gën a méngoo ak li nga xam ne noonu la ko suñu borom bi tërale loolu nag APEXI en tant que association pour la promotion économique culturelle et sociale dimension sociale boobu daf ci am wàll woo xam ne moom parce que yéene na ko joué fii ci yoof mu moo tax mu tuddee boppam yoo fi démb ak tey lii lu jóge ci démb la ñëw fekk ci tey war a songi ëllëg moo tax al nasir ñu ànd ci ak moom pour man ci liggéey euh, aji daal loolu laa amoon ci suma sukkandikoo ci liggéey bi nga xam ne yëpp ñu ngi ko doon def ci semaines yi ñu génn dañu tënk ko ci terme de référence yi nga xam ne alors moom la ñu waxoon ñu faram fàcce ko donc bésu taataan la bésu weccoo xalaat la amuñu objectif épuisé ko mais ñu seet li ci gën a rafet ñu tënk ko ñu bu ko defee ñun ñëpp ñu mànkoo ci ne lii la ñu jàpp ne daal bu ñu ko degee ci table yi dana nekk suñu modeste contribution ngeen baal merci beaucoup. bonne gouvernance comme gage de justice sociale et de stabilité Imam bay Bass mi toog ci table ji indi woon ñu waxtaan bu rafet boo xam ne ñëpp bañ fiy jóge ku si nekk dolli nga. sa xam-xam bu neew ci la nga xam ne moom la indi won ne nga bonne gouvernance gouvernance publique buñ koy wax thème bi ngeen tan tay daf ci am cieur bu am solo parce que manam baña a xaabaabal daanaka digg doomu lepp loy def nga baña yaakar ne yow rek ya ko mom ndax eh, wolof njaay day wax ndab li yaatu na ku nek xajna ci ku nek bu baye sa waar def ko na nga ko war a defee daanaka sotti seeg def si ya ñuy wax rek moom lay nekku ne dinga nga si xaj loolu nag du ma si sore lool parce que boroom waxtaan bi moo ko gën a mën a wax képp ku koy wax te sukkandiku nag si islaam kon imaam Baye baas ñu ngi dellu di la sant ci gis nañu bërki démb rek ni nga taxawé ak allocution bu rafet bi nga def ci précoloc bi nga xamné mom la ñuy bëgg organiser xeyna coloc bi ñewul mais précoloc bi daanaka annoncé na bopam yalla mi dara téwul yalla yalla def ñu yegg seeg jamm bu képp ku ci wara taxaw taxaw ci kon sans plus tarder maa ngi la présenter ci Yoff xeyna protocole day bëgg ñu présenter la mais daanaka xam naa képp ku fi nekk rek moo ma gën a xam imam Mbaye Bass mooy kan taxawaayam ci diine ji ak taxawaayam ci dëkk bi ak daanaka xam-xam bi daal yal na yàlla def mu dolleeku te at mu jot ñu koy téewe nga ñu ko baaxe donc sans plus tarder ma jox la kàddu gi pour que nga tasal ñu thème bi nga xam ne moom la Al Nasihah APS si tànn si إمام وإزالة الباطل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على حبيبه ورسوله وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ñu نيو nuyu تدي في تويب نيو fi تدي yépp يي nuyoo ba gën a sell ci nuyoo yi nuyoo ba gën a rafet ci nuyoo yi muy asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu képp ku fi teew yal na yàlla defal la jàmm jërëjëf présidente ñu ngi lay sant bu baax ci ubbee bi waaye ñu ngi jagleel nuyoo kilifa yi fi teewal APECSY kilifa yi nga xam ne ñoo yore ndomb tànk fii ci yoof di chef chefs coutumiers tabarakallahu di jagleel nuyoo it ñi nga xam ne ñoo jiite anasix ak groupement central e fa tabarakallahu ak it amicale des étudiants laayeen ak bépp kuréel goo xamante nii rek eh, yàlla dogal na nga dugal sa loxo ci liggéey bu am solo bii ñuy rafetlu bu baax jotaay bi di rafetlu it liggéey bi mu mel ne wa tabarakallahu li ko sabab mooy waajal woote bu rëy bu màgg boobu di woote Seydina laa El Mahdi alayhi salaatu wassalaam woote bi def ren téeméeri at ak fanweer ak juróom-ñett تبارك الله دما يفرل دي وخني جارول نيو تخاو تي لا الامام وخ رك ني اجيبوا داعي الله يا معشر الانس والجن اني رسول الله اليكم باتاي ادنا تي لول لا نتاخاو تي موم ليك يتيل امال كو سولو موي تي لان لا نيو لان لا موم لولو كو غنا يتيل ndax lolou ci loxo yàlla la nekk statuem ci loxo yàlla la nekk jéemul sax layal boppam ñun ñooy sob rek sama consort gi di gëstu aaya yeeg addis yi naan addis bi dëppoo naag moom wax na nangam nangam waaye moom boo xoolee Seydina Limaam bu mu ñëwee layalul boppam de Seydina Issa Ruuhullaahi boo xoolee it layalul benn yoon baayam dafa ñëw rek soobu ci ngëm ak jëfe li nga xam ni moom la bàyyam bu tedd ba indi woon te foog naa ni eh, kenn gënu koo gëm baayam kenn gënu koo teg ci eh, tegu ci yoon wi nga xam ne moom la bàyyam rëddoon kon wuy si wooteb Seydina Limaamu mooy lan ndax loolooy prétexte jotaay bi mooy tënku ci lii mu indi ci tawxiid muy baatub laa ilaha illallah ci tënk wuy si wootab Seydina Limaamu mooy lan mooy gëm ne nit gënul nit moroomu nitam ci juddu walla ci cosaan ngëneel ci gëm yàlla la nekk ba looloo waral ginnaaw sant dañ ko daan tiitaroo te sant dafay firndeel ndomba tànk walla dafay firndeel ak ngëneel walla boddi konte ciw xeet moom ba mu ñëwee mu dindi loolu wuyu si wooteb Seydina Limaamu mooy nangu principe bu égalité ci nit ñëpp xam ni ngëneel inna akramakum indallaahi atxaakum wuyu si wooteb Seydina Limaamu mooy lan mooy nangu ne yow bu la yàlla mayee ñaari dërëm war nga jël benn dërëm ba jox ko ki nga tane ndax dafa révolutionné zakat man day doxaguma gis ba ci njabootam kuy tàllal loxo di yalwaan ndax njàngale moomu nga xam ne indi na ko gisuma ko Cambérène gisuma ko yëmbal gisuma ko yoof ndax cette solidarité agissante bi nga xam ni moom la jàngale kon ku adhéré ci principe yooyu wuy si nga nangu nga woote Seydina Limaamul Mahdi kon eh, wuy si woote bi yamul rek ci aspect superficiel bi ñu ko bëgg a jox ci sol sol yu weex ñëw yoof toog jàmm laay déedéet boo wuyoo woote bi da koy dund ci sa adduna yépp waaye wuy si woote bi mooy lan mooy indi mu inni muhibbukum limaamu day maa leen bëgg waaye nag kon fa taxabbu na ngeen bëggante fa inna ahlal janna yataxabbuun ndax ñoñ ajjana dañoo bëggante kon moom ci lii lañu ñu woo ci tënk entre autres kon nag wuy si woote bi moy dundu principe yi nga xamanteni ni fa tabarakallah waxna ko ci eh waxtan wi nak dama koy ubbi rek taxé ba incha allahu borom xam-xam yi fi nek yépp ku ci nek mën ci jox sa contribution thème bi moy al islam diinul wasatiyya l'islam religion du juste milieu selon les enseignements de Sayyidina l'imam al Mahdi alayhi salatu wassalam mu mel ni lii bokk na ci juste milieu jotaay bi ak lii nga xam ni ak yu bari ñu ngi koy def ku ci nekk ak pas-pas ba nga bokk ak kurus ga nga yor kurus ga nga xam ne it mom nga yor terewul nga ñëw sof sot le sayyidina al-imam al Mahdi ci wotem bi kon fa tabarakallah lolu dundu juste milieu la ndax nit ko équilibrer moy mën loolu li tax nak manam gëstu thème bi am solo li tax l'islam xir ñu ci ñu teggu ci yoon wi nga xam ni mooy yoon wi diggu dóomu te yoon wi diggu dóomu mooy yoon wi gën bañ a xaabaabal waaye it bañ yaafuus kon tegu ci juste milieu daf lay éviter loo li nga xam ne mooy extremisme tey am na nañu seen pas-pas seen ngëm moo leen di yóbbu ci tuur deret moo leen di yóbbu ci rey bakkan rey bakkan koy wax ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadu rasulullahi ni yow nga rey ko teg ko ci lan ci islaam kon loolu mën nañu wax wàllu extrémisme la eh, waaye it tegu ci yoon wi nga xam ni mooy yoon wu jub mooy yoon wu diggu doomu mooy taxit doo yaafuus ba ne làcc moo tax jullit dafay engagé wu ci société bu muy dund engagez-vous dans tous les domaines ci fexe ba société ba jëm kanam fexe ba fa tabarakallahu société am développé wu sunu borom mi ngi ñu koy wax ci alquran wa kazalika jaalnaakum ummatan wasata li takunu shuhada ala an-nas wa yakunu rasul aleykum shahida kon yàlla dafa nu wax ci téereem bu tedd bi ne yéen jullit ñi def naa leen xeet wa nga xam ne yéenay xeet wi diggu dóomu kon ci yéen la àdduna di war a roy yéen la waa àdduna di wara a jël référence laka sabab nag mooy yàlla yónnee na leen ka nga xam ni mooy yonent ba nga xam ni moom la yàlla def muy référence ci wàll gépp ndax yonent bi sallallahu boo xoolee dundam lépp daf ko teg ci juum lépp def ko teg ci juste milieu am na xadis bu siiw bu ay jaam yàlla dañoo ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa kenn ki ne ko man de dama fas yéene sama giiru dund yépp ma koy woor ki ne ko man dama fas yéene sax dootuma takkati jabar ngir mën di jaamu yàlla rek kii ne ko man dama fas yéene guddi gi dootuma ko nelaw ko julli rek di ko naafila yonent bi sallallahu alayhi wa teg ci ne man dey gënoo leen ma gëm yàlla maa leen ëpp imaan waaye guddi gi damay nelaw genn xaaj di julli genn xaaj bëccëg yi damay woor yenn bëccëg yi di dog yenn bëccëg yi damay takk soxna itam ndax labbewu maanaam toog bañ a am soxna bokkul ci sama sunna kon foofu yonent bi sallallahu alayhi wa mi ngi jàngale lan mi ngi jàngale juste milia mu teg ci xadis boo xam ni daf ne yàlla na yàlla rëbb képp koo xam ne way xaabaabal nga kon xaabaabal dafay jëmee nit ci lan mooy ci ak alkande kon nit ki da ngay dund doon nit ku équilibré nit ku équilibré nak moy nit ku nite te islam la muñu ñëk jàngal moy ak nite kon ginnaw yàlla ba mu ñu joxee yoon woowu tek ñu ci daf ñu wax ci alquran ba tey ni faqim wajhaka lid din khanifan fatrat allah lati fatara an-nas alayha la tabdila li xalqillah zalika diinul qayim walakin aksaru naas laa yaclamuun gis nga fii yàllaa ngi ñuy définiral diine wax ñu lan mooy diine te waxul ci koor waxul ci julli waxul ci natt azaka foofu yàlla daf ñu delloo ci li nga xam ne mooy fitra doomu aadama mooy nature doomu aadama mu wax ñu ne yow lay sa nature nang ca dox te bu ko defee yàlla ne na nga tegu ci yoon wi nga xam ni mooy yoon bu jub wi nga xam ni moom moo dëppook nature doomu aadama ndax nit dund te doo lekk bokkul ak nature doomu aadama doomu aadama bu lekkul ci faatu la jëm doomu aadama bu nelawul ci feebar la jëm kon fii yàlla mu ngi ñuy wax lan mooy diine mooy nga xam lan mooy sa nature yow doomu aadama sa nature boobu nga tegu ca xam nga tey boo xoolee ñu bari ñuy bind ci wàllu diine wàllu wàllu wàllu wàllu diine ak ak bien-être eh, gis ne lépp loo xamante ni nii mooy tax nit ki mën a am dund bu dal ci àdduna mën a am wér dafay fekk ne moom mi ngi dëppoo njàngale yi nga xam ne moom la yàlla jàngale ci ci alxuraan yonent bi sallallahu alayhi ba muy jàngale yooyu scientifique yi sax découvrir aguñu ko woon ci ne ndekete nit boy lek lek di gudum manam di bañe eppal trop ci la ngay lek yaay gëna a amu ko wér ki nga xamanteni ni da fay lek ba kollu bané dag dagar kon nga gis ne ndax nit ki boy lek bëgg nañu sa biir nga bayyi ci place ndox bayyi ci place air kon lolu baku Islam di jangale yag na te gis nañu tay fa tabarakallah ne ni eh, wax ci walu santé loola mooy tax nit ki am wér kon gis nga foofu yàlla mi ngi ñuy jàngal li nga xam ne mooy sunu nature yàlla moo nu gën a xam sunu bopp lu ci nekk rek yàlla am na nu mu ko yamalee ci nit nag ca ca na nga war a nelawe ba yonent bi salaay di di jàngale ne nit ki war nga sieste ndax nee na seytaane bëggul sieste tey ñii nga xam ne ñooy boroom xam-xam yi cardiologue yi wax nañ ne boo sieste sa risque am crise cardiaque dafay wàññeeku sa risque am AVC dafay wàññeeku te gis nga bokk yonent bi sallallahu alayhi di jàngale ñaata siècle la ndax nit ki dafay jaadu boo xëyee kër kër kër kër yi ba milieu journée nga toog nag dallu waaye waxuñu rek ngay xaabaabal di tëltëli rek ba ngoon jot dallu kooku ngay dallu daf lay joxaat wér fa tabarakallahu daf lay jox li nga xam ne moom mooy santé seydina limaamul mahdi alayhi salaatu wasalaam dafa ne lépp lu ma leen digal ma borom moo ma ko digal ma digal leen kon moom juuyuwul ak borom bi subhaanahu wa taala ci dara wa ma amartukum illa ma amarani rabbi boo demee ci xutbaam yi mu ngi ñuy wax ne maa ngi leen di nemmeeku ci seen tool yi dund waaye it maa ngi leen di nemmeeku ci seen tool yi dee maa ngi leen di nemmeeku ci seen tool yi àdduna waaye maa ngi leen di nemmeeku it ci seen tool yi àllaaxira muy wax joo xam ne wax jooju rek doyoon na sëkk ci islam religion de juste milieu et d'équilibre ndax yàlla daf ñu bind wàcce ñu kaw suuf waaye nañu nag nangeen ngeen liggéey suuf waaye ci biir liggéey suuf googu ngeen di liggéey suuf na ngeen ci waajal seen ëllëg ndax fa ngeen di mujje moom sang bi mu wax ne kon maa ngi leen di nemmeeku ci seen tool yi àdduna naka ngeen ci kër këre naka ngeen ci yëngatoo waaye naka ngeen di jëflantee ci seen biir mu ne waaye it maa ngi leen di nemmeeku it ci seen tool yi alaaxira kon dangay xëy suba julli sa fajar def sa wérd waaye sol say dàll dem liggéey ci biir liggéey boobu it mu ne ci seen kër kër yi àddina maa ngi leen di nemmeeku naka ngeen di jëflante seen mbiri diine ndax diine du julli rek du woor rekk waaye na ngay jëflanteeg doomu aadama yi daf ci ëppati solo muy muamalaat yi Seydina Isaa Ruullaahi alayhi salaam ba mu ñëwee it ci Cambérène mu doxal fa jàngale baayam boobu fajar bu jotee ñépp dem jàkk ji julli ci waaye bu ñu jullee fajar ba noppi ñépp dem ca tool ya bëggul woon gis waxambaane buy doxantu ci dëkk bi ci waxtu tool waaye it jamono ji ñuy julli bëggul dégg fenn ci dëkk bi fu ñuy fu ñuy fu ñuy dëbbe wala fu ñuy defe leneen loo xamante ni juuyoo na ak jaamu yàlla gi kon lu ci nekk dafa bëgguñu jox ko ak xam ba mu doy sëkk Eh, message boobu nag dama koy lancer jeunesse bi nga xam ni tey si tey ñi ngi bëgg jël seen adduna yëpp def ko ci jàkk yi ak lieu de culte yi loolu yàlla wax jeune danga war a góor góor lu jàng muy xam jeunes yu bari tey démissionné nañu ba pare mbubbu woolan diine loolu yàlla bëggu ko ndax yàlla dafa bëgg nga teggu ci yoon wi nga xam ni mooy yoon wi mu la sant muy fatratallaahi muy fitra aadama bu ñëpp demee ca jàkka ja kan mooy dundal njaboot gi maanaam dem ca jàkka ja rek dëkk fa jàkka ja yàlla daf ñu wax sax ni bu ngeen paree julli nee jóg leen dem yëngatu ji ngir seen wàllu aduna kon dem ci lieu de culture rek bëgg fa sax suba ak ngoon guddeeg bëccëg yor kurus loolu lislaam sant ko kenn ndaw ba nga ca tolloo sàkkul xam-xam ndaw ba nga ca tolloo liggéeyal ndax dafa bokk ci jaamu yàlla liggéey ak yor njaboot yor leen yorin gu rafet kon fa tabarakallah ñu gis ne ci tënk may daaneele et juste milieu moo ñuy jox dund gu tal gu dal juste milieu moo ñuy jox dund gu teey te juste milieu moo ñuy jox saadatu daarey ni saadatu daarey ni bi maanaam moo ñuy jox texe àdduna ak texe alaxira ni ma ko waxee woon ci njalbeen nag fa tabarakallahu xam naa ni ñu ma gën a xam te mbaa ngi fi toog ci jotaay bi moo tax ma doon ubbi waxtaan wi rek incha allah bu ko defee ma delloowaat présidente kaddu gi mu mën a incha allahu jox ñi nga xam ne bëgg nañu contribuer ñu contribuer bu ñu ñëpp daanee la ñu daal di tëj te si ni nga ko tënkee foog naa réaction yu bëri ñu ngi koy xaar ci mbooloo mi parce que comme ni nga ko waxee rek képp ku fi toog rek am nga loo si dolli. si ubbi bi nag su ma koy tënk nee naa toujours tënk imam bay baas daf may jafe waaye dinaa jéem tuuti si li ma dégg nga waxe ko mooy. wuyu si woote ajiboo daaya bi rek tënku si baatu laa ilaha illallah dafay dafay wane ne yàlla rek moo amay ngëneel et ñun ñi nga xam ne ay doomu aadama lañ ci suuf ku si nekk soo tënkoo si baat boobu rek dafa am ay enseignement ay ay yar ay ay digle yoo xam ne soo si tënkoo rek juste milieu boobu ñuy wax dëgg doomu boobu si ngay si ngay nekk bañ a xaabaabal parce que xaabaabal bi nga wax bi bi nga xam ne ñëpp xam nañ ne moo jur extrémisme bi nga xam ne moo am fépp si waxuma si dëkk yi ñu nekk nii mais si yeneen dëkk yi nga xam ne xeex yeeg tuur deret yi am yépp xaabaaba la ko indi mu wane ni juste milieu maanaam digg doomu dafa baax si doomu aadama si lépp lu muy def nag laal nga zàkkaat ak solidarité ak nekk ak sa moroom si dëkkuwaay pour que jàppale boobu ak solidarité bi daanaka lépp rek juste milieu yi boobu day tax nga mën a xalaat sa bopp gaa mais may keneen cër ba nga xam ne comme ni tubaab di wax ne ma liberté commence là où euh, s'arrête l'autre ku nekk am nga si wàll su ma jëlee lépp kon keneen ki du am wàllam te su jëlul wàllam day sisu si aduna nga jox sitam example yu yu am solo ne ndaje mi dañu bëgg plutôt euh, symbole weex bi tam ñew nga si euh, enseignement Seydina Limaamu ali salatu wassalam moy déjà commencé bu ñepp solo ni weex do xam kan mo am daraja kan mo am dayo kan mo toll ni kan mo toll ne ñepp rek dañuy gis ne ñun ñepp nous sommes de devant Dieu yàlla moo nu sàkk moom rek moo am ngëneel mais daf ñoo sàkk pour que àdduna bi li fi nga xam ne ay lu mu ñu may pour ñu dem si ñu ñu dem si ak digg doomu joxe nga exemple ki nga xam ne dafay newoon day woor rek su fekkoon ne ñëpp dañuy woor rek kon li baax li si àdduna yëfu njuufeen yeeg yëfu ngomeen ni kon kenn du ko baaxew ah, ñoom maa ngi gis benn njuufeen di muuñ nee nga tam bu fekkoon ne nit ñi duñu nelaw foog naa kon ah, dof yi di doxe si mbedd yi dina bëri parce que nag guddi nelaw la mais xëy na na nga digg doomu ba nga xam ne su fekkoon ne dangay naafi la sax nga nelaw am sa xel xelu bopp ba mën a euh, contrôler sa bopp wax nga tam ba lëkkale santé suur këll baaxul daanaka juste milieu boobu mooy indi pour une meilleure santé nga bàyyi leneen loo xam ne dafa waroon a ànd ak pepp bi nga lekk mu ànd pour que nga am meilleure santé xam naa gastro entérologue yi dañuy wax toujours ne su fekkee ne da am ballonnement wala dangay so danga am biir buy metti na nga bul suur këll loolu enseignement bu am solo la xaabaabal baaxul mais am digg doomu day tax nga dal ci àdduna ba pare xam ne keneen ki daal am na wàllam nga jox bàyyi koog wàllam ñëw nga tam ci xutba Seydina Limaamu liggéey ci àdduna mais aussi ñëw nga tam ci poñ bu am solo boo xam ne diine du rekk julli ak or mais aussi dafa am yoo xam ne ci àdduna dañ la ko teg pour que nga mën a dundal sa njaboot foog nga dem liggéey yi et que bu liggéey jotee bu julli jotee nañu julli ji mais bu liggéey jotee nañu dem liggéeyi ba nga xam ne li nu warloo suñu njaboot ak suñu prochain ak képp ku ñuy jëflanteel dinañ si dem ba mu doy nga ñëw nga si quête du savoir travailler s'occuper de sa progéniture mooy li ma wax léegi si tënk daal na nga dund ci tey mais aussi na nga waajal sa bopp pour àllaaxira su fekkee ne am na loo xam ne wàññi naa ko si xëy na contributeurs yi nga xam ne ñooy ñëw dinañ ko dolli donc fi mu nek ni damay wat kaddu gi mbolo mi si contribution si laaj si dolli ba nga xamne ne fi mu nek ni libas dama lay ñaan nga ubil ma une liste pour que ku bëgg contribuer rek te ñu xam dañ na won 6h30 dal lañu bëggoon mbir mi fété bor ñu ngi tollu 6h kuy intervenir nga tënk rek parce que comme ni ñu ko waxee waxtaan bi du fi jeex tey ku si nekk mënoon ngaa def ni conférencier bi def mais pour des raisons d'économie de temps pour que ñun ñëpp si digg doomu bi de bañ a toog rek di wax te am na yeneen yoo xam ne moo nu war ñu ñu tënk rek kàddu yi kon mu ngi ubbi list ku bëgg a contribuer. anticipation tam euh, damay kàddu yi fi jëm yëpp. di yokk rek si affaire juste milieu di wane ne même yàlla wax na si juste milieu si ba muy wax waxaafizu ala salawaat yi surtout mu wax salaatul wusta pour wane ne prière yi sax li mu nekk cinq du hasard am na bu ne ci digg bi boobu nu ngeen mën a def bu leen ko tardé di leen fa nekk buñ ngeen julli donc waxoon na juste milieu même tubaab buy wax lu baax lu naan il rase les murs pour wane ne. jullit bi dox bu góor beex bu jigéen bi buy dox si mbedd sax warul ne si cat bi si digg bi la war a jaar pour wane ne extrémisme baaxul mais ku wax tam ne extrémisme baaxul war a wax ne tolérance lu baax la mooy nga nangul keneen ki mu am position nga nangul ko ko euh, te wolof euh, xam na lu bari xalaat naa xam na presque lépp seen na lépp soxlaawul sax mu koy wax ci arab ndax doomu aadama lii ne ci digg bi sax ndigg la ko tudde ndigg te mooy wane doomu aadama bu am équilibre boo laa woon bu sa digg amee problème sax doo booy doo dootoo am équilibre nga xam ne donc wolof xamoon na loolu mu waxaat ci li mu wax ci zakat bi loolu surtout laa ci wax defe naa man jàng ma baax dama ko lire rek en français mais defe naa dafa wax atu xaqaxoo yowmal xisaadi yi mënuñoo ne en 2018 di am salaire di xaar mu am at mu joxe salaire man duma laa yéen di jaan laa am naa wér depuis 30 ans mais loolu bàyyi laay digle c'est extrêmement révolutionnaire bu doon salarié bu ne jour ba nga jotee sa salaire nga joxe ko kenn du les enfants dans la rue du am je dis pas les enfants la rue les enfants dans la rue du am doon ku am 1000 francs yow génn fii maam ñaaw may ma 1000 francs ma génne 25 joxe ko ku yalwaan doo am les femmes bàyyi laay leen jëkk dugal si jàkka temps boobu man mi ne woon tijaan di animé daayira tijaan damaa daan wax déet yaay jigéen la ci dugg ñu am daayira mu sarjin ñu ko wet léegi ñu fekk si na ñëpp d'accord na ci toutes les léegi da nga fay dugg fekk fay jigéen donc nitu yàlla waxam dafay guddee waaye boo dundee sax dund gu xaw a gàtt tuuti sax fekke ko la mu waxoon lépp nag c'est le moment ñu diviser ko génn ko si couleur blanche bi yëpp même science wane na ne couleur blanche boo ko solee yaay gën a feex ki sol beneen couleur néeg bu ñu peinture peinture bu weex moo gën a feex néeg bu ñu peinture beneen couleur bu dul bu weex ba mu mais am na patrimoine immatériel boo xam ne bàyyi laay ko moom dañ ko war a dëmm exploité diddini ko xamal ko àdduna bi yëpp xale ñu jongal ko il est prouvé que médecin yi xam nañ li muy wax xale yooyu si ñoom sida du fa bari te boobu sida amul xale nekk xale dès le plus bas âge nga xamal ko luy sëy kooku bokkul la ka nga xamante ni mosul dégg sax luy waxu sëy parce que day defee ne góor a jigéen dañoo war a daje fu ñu daje rek mu dem donc am na yu bari yu bàyyi la jàngale man xalaat naa ne dañ ko war a gën a revisiter mu nekk un patrimoine immatériel boo xam ne bu àdduna tukki bés bu jot la science confirmé ko ngeen baal ma merci. Ah, dañu ma bind ci comme ça waaw par force waaye am na quand une contribution ki jëkkee mooy daanaka li ma ba xaw na laal si li ma bëggoon a wax ndaxte imam dafa wax solidarité. wax solidarité bi nga xamante ne moom la cultivé ci ci askan wi euh, wax ci solidarité bi maa dem wax na tuuti ci asaka bi te ñun yaakaar nañu ne euh, am na lu yàlla wax quand même ci alxuraan ci affaire yi asaka si li ñu jàng ñu xam boo demee suratul baqara ne ne wa mimmaa razaqnaahum yunfiquuna mooy li ma leen wër sëgale li ma leen wër sëgale nag wuute naag li ngay économiser def na li ma leen wër sëgale na si génne sama cër donc dëppoo na ak lii Seydina mu jàngale parce que asaka xaar ba faj say soxla def yépp bu desee nga teg am at di sob di génn kooku ah yaakaar naa doo sauver ay néew ju doole yu bari bu mën na jàppale donc loolu buñ naan c'est révolutionnaire euh, mën nañu ko tudde loolu mën na ko bañ a loolu parce que si li ñu xam alxuraan daanaka wax na loola li ma leen wërsëgale nañ si génn sama cër kon nag rien de révolutionnaire yàlla wax la ci affaire yi ñun man sama classe gi ay mag lañ fekk nañu fi bu ñu ma saana salaatu rek julli suba man mii def naa ko ba tey salaatu bu ñu daaneelee salaatu rek julli suba balaay dafa daan def ba léegi bu salaatoo toog lu mat 15 minutes di soog julli léegi ñëpp a koy def donc c'est une révolution boo xamante ne duñu wax na révolution la mais dégg wax yàlla la te bàyyi laay def na yàllaa ma yónni kon ku yàlla na yónni dafay diisoo ak yow te lu mu diisoo yow amuloo droit wax la neen donc ñu ngi rafetlu waxtaan wi ndaxte lu bari ma ba wax na jigéen ñee kii tout ça et cetera mas naa dégg sëñ Ablaye ne bàyyi laay nee li ma indi duma ko yóbbu nit ñi dinañ fi jaar di ko for benn par benn te nous ñu actuellement kon ñu ngi sant sëñ bi si wax ji nga xamante ne nañu ko mais nous mën ñu permettre alors ñu def apporter contribution Je suis président Ngagne de ah, Djibril Diouf moo am kàddu gi Djibril Diouf moo am kàddu gi te encore une fois on est à 6 h 9 suñu objectif est à 6 h 30. non jëloo lu bëri sa sànni ma kenn ka rek ci kàddu doy na sax ñu mën ci xéwalu mais njàng ak xam-xam du doy eh, ci ci li mu wax dañ ciy tibb rek sànni si suñu xalaat ndax am baat bu mu ndax baat baatu la tawhidullah tawhidullah nag soo ko waxee rek daanaka jeexal nga lépp ataw aw tawhidullah minallaahi ci yàlla la jóge te ci yàlla lay delluwaat et si gëstu wala ci xam-xam bu néew bu jàng maa ngi fàttaliku première OCI muy quatre-vingt-onze concordance ñi ñu sélectionné jël jëluñu suñu école ñu boole ma wax benn élève bu ñuy wax actuellement oustaz de ñu koy wax Mbaye ndoy ñu laajoon ñu suñuy xalaat ci jamono man sama xalaat maa ngi ko jële woon ci xalaatu Seydina Limaamu ma bindoon al islam salaam al islam tataxaddam al islam wa sabab al islam wa siqa mais man bima jélé jëlee baat bi bind naa ci lettre lettre bi ci mujj mu ci sëriñ Bass Laye man baat bi may jëfandikoo depuis 91 ba léegi mooy assalaam abaatu salam ci lay liggéeyee ci lay créé limay def lépp wallahi alazim su may jëfalanteen nit sax ci baatu salam bobu lay liggéey ak yow muy baat boo xamee ne mën naa wax ne mën nañ ko sax appeler appel mën nañ ko tuddee ci baatu salaam ci biir Seydina Limaamu indi ndax moo koy wax fii ci biir wax ji xoolal ma melokaan bi nga xam ne taalibe Laayeen mooy symbole mooy yëre bu weex loolu soo ko seetee mooy asalaam ndax ku bëgg jàmm drapeau bu weex ngay tàllal li nga doon def yëpp muy wàllu guerre ak wàllu leneen ak leneen jàmm am ci loolu rek suñu taalibe Laayeen ñi suñu xalaatoon benn année ñu wax ci baatu salaam delloo ko ci jàmm réew mu mel ni Sénégal te jàmm di fi xew yàlla na ñu yàlla may jàmm rek di fi xew ñu ne Laayeen doxe nañu Cambérène ba Yoff ci baatu salaam topp tefes gi loolu rek baat la boo xam ne li mu mën liggéey ci àdduna ci salaam ci lu dëgg doomu comme ni ngeen ko waxee lépp lay def rek na ko yamale suñu defoon loolu boole ko ci li nga xam ne moom lañu am te ñëpp di ko gis yàlla dinañu baaxee àdduna duñu seetaan ci baatu salaam boobu mooy ni ñu fexe loolu comité yi ak li nga xam ne moo fi am ñu dugalaale ko suñuy biiru waxtaan yi di ñëw mooy ñu fexe ba taalibe yi mën a am benn jour boo xamee ne dinañ mën a jóge Cambérène ñu sol seen yére weex topp tefes gi ba yoof loolu dina tax baat boobu mën a jëm kanam ëllëg te li muy saafara ëllëg bare na lool ngeen baal ma wax. lu mu am am solo nañu may. ñeneen ñi ñu contribuer bu ñëpp jëlee temps bu mel ni imam Mbaye Bass foog naa duñ fi jóge fi la ñuy toog digg doomu gi daf ñu wax ne nañu fexe ba fii timis laa jot ñu de dem julli ji waxtu wi donc foofu lañ ko tënk ngeen baal ma àq kon ku si topp ma jox ko kàddu ah Safina ah, ñu ngi leen di dulu nuyu di leen ziar di rafet lu jotaay bi en tant journaliste et man dama tënk kaddu limaamu maam limaamu ci ñett mooy le développement durable mooy bu njëkk bi mooy la civilité ñaareel bi mooy euh, euh, la solidarité ñetteel bi mooy le civisme foofu laa doon waxee wasalaam. solidarité kon hein? civilité développement durable solidarité et civisme civilité waaw civilité voilà ah kon ku si topp ma jox ko kàddu gi euh, man la <coughs> man la euh, El Hadji Sana Ndir dëkk Yoff Ndedan euh, salaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp di jiital ci nuyu bi suñu kilifa le président Elas Ndiaye di aussi di euh, le conférencier di le jotaay bi di le jot euh, le jotaay bi qui ci wàllu du doom toujours elle contribuer contribué mais je woon sax savoir parce que déjà comme son président wax a ci problème solidarité pour vous. alors faut faut faire. waxee ci c'est un élément.

ba tey fi ñu toll ni parmi eh, fukki xet yeeg ñaar yëpp ñëpp ñu ñëpp ñu ngi koy roy donc merci wasalaam jërëjëf délégation eh, ñi ngi nuyu mbooloo mi fi teew ñëpp ñu di nuyu apex yi ndax apex yi ci la bokk aje aram xam na li may wax ma bokk itam groupement central de la yenne en tant que président de la commission coopération et relations extérieures du groupement central ma la religion religion du juste milieu Quoi religion du juste milieu le terme juste il y a justice qui dit milieu mooy diggante laxisme ak extrémisme li nekk diggante laxisme ak extrémisme nag mooy modération kon nag l'islam dafa bëgg ñu nekk modéré ci lu nekk extrémisme mooy indi li xew ci àddina bi yëpp te li ko indi yëpp bu ngeen ko xoolee mooy terme yi nga xam ne ñu ngi terminé par isme isme ism nek rek nit ñe bolo gëm dari ism rek extrémisme dari taxaw do bëgg jël nak ben exemple fekk ci mbay bass ak sen permission dana ko wax ci français wax ko ci wolof mbay bass dafa jël ben exemple man dama bëgg jël ben exemple boo xam fay concerner góor ak jigen ndax ñoo yor société Dans le Sénégal les dernières statistiques n'ont pas été ñi ëpp góor ñi kon nag lu ñuy wax rek war na ci sedd jigéen ñi de Seydina Limaamu alayhi salaam dafa jox mu premier exemple bi dañu voici un homme dominé par sa femme celle-ci le dirige comme elle l'entend de sorte qu'elle ne cherche plus à la détourner d'un péché ou l'encourager à se conformer à une vertu, car elle le domine complètement. C'est ce un kër Sénégal ñu ne ku de lan comportement est-ce que extrémiste est-ce que modéré est-ce que laxiste d'accord nañ ci ni képp koo gis mu amee comportement boobu rek extrémiste la ndax dafa bàyyi soxnaam dominé, ko ba moom ci boppam mënu ko delloo ci jub mënu ko delloo ci jaamu yàlla mënu ko jëlloo ci lu dox loo xam ni dafa ànd ak li société bi nangu kon nag waa jooju extrémiste la na ko ñëpp moytu deuxième homme bi un autre homme traite sa femme avec un esprit de supériorité et fait peu de cas d'elle, comme si elle était une domestique. nous itam bari na Sénégal ñu bari ñi nga am soxna koy considérer comme rek euh, euh, euh, euh du ñuy xool valeur duñu xool cëram duñu ñu sax cëram ndax jigéen ji jóg di dem di daan dooleem bu am jom la même su fekkee dafa nekk ci kër gi di togg di yekk di yar xale yi di dimbali borom këram di dabbannee xam daanaka mooy daan dooleew borom këram waaw ku mel noonu su fekkee ni boroom këram dafa amee une attitude de supériorité kon nag kooku mën nañ conseiller dafa laxiste laxisme mu des nag troisième homme koku il tient le juste milieu et traite sa femme conformément à l'ordre de Allah subhanahu wa taala manam day fexe ba li yàlla wax ci alcorane karim sourate à un numéro 282 228 mi ngi wax ni jigéen joo gis jigéen joo gis su fekkee ne droit itam un devoir bu tolloog droit bi mu am te yow mi borom kërëm war nga fexé ba bépp droit bu mu am rek devoir bi mu tollol nga fexé ba fexé ba mu tollok fin mi ni euh, Allah allahu subhanahu wa taala dafa bëgg ñu nekk juste milieu kooku mooy benn deuxièmement mi ngi fexe ba soxnaam topp sunus muhammad sallallahu alayhi wa sallam sunna soosu mooy képp koo xam ne da nga gëm maanaam un croyant ne déteste pas une croyante ndax su fekkee ni am na maanaam lu bon ci moom wala lu mëtadi am na lu baax ci moom soo ko rejeté ngir li bon ci moom di fàtte lu baax wala doo gis lu baax li mu am li mu yor kon nag boroom kër war na xool soxnaam su fekkee ni am na lu mu manqué mu baal ko ko te mu xool li nga xam ne ni lu rafet la te lu taxoon mu bëggoon ko jël ko def ko soxnaam kooku toog ci kër gi te njabootam di ko dimbali di ko jàppale. jërëjëf Sidi. loolu daal ma doon 8 mars bii ñëw yow lay. jërëjëf jërëjëf. <laughs> et eh, digg doomam nag. oustaz si conférence bi mu def di ko féetale suñu kóllëre ak moom ne chaque jour ñu ngi koy xëy na xamuñu mais chaque jour ñu ngi koy suivre di xool importance yi muy traité. bon ñun fi ñu bëggoon participer mooy euh, li mu wax si wàllu surtout si intégrisme si eh, extrémisme parce que am na luy xew temps yi Sénégal. bon comme seen genre am bi xam ne dinañ am temps di wax ak ñi war nañ si wax mu mooy lu mel ni euh, koor gi yi am te eh, yooyu yëpp toujours si extrême la yéen lu mel ni peut-être euh, dinaa tudd tur mais dina xaw a mooy lu mel ni festival salaam <coughs> parce que léegi dafa mel ni ay fan fans club ñooy daje parce que man ma comprendre nga organiser lu xamante ne bu laayaan bi sikkar tijaan bi day yóbbu bu murit bi sikkar laayaan bi day ñu indi ay photo fa faneen la zikrullah lañ wax weeru koor lañ ne da nga war a jàppalante da nga war a kii waxtasimu waxtasimu daare bi na laay waxtasimu ñun ñoo ko créé ñun ndooyen ndooyen katuma kuma ndoy ay laayen ay tijaan ay murit koor dañuy daje fii bu ñu lii si créé pare laayen jël murit jël ñuy wër ba mu dem ba après booy di si gën a dugal ñu ñuy màgg di gën a bàyyi après presque mu nekk daare laayen mais ba léegi ñu ñu ngi si président doon ñu ngi si naan parce que ñun loolu lañ xam yow parce que ñun au niveau de Yoff loolu loolu xam ku tey dëgg loolu lañ jàng loolu la si xewaayo man maa ngi bokk daayratul kiram chaque année koorite laax bi dem laayan dépense que xale général lay jóge ñëw ñoom ñooy defar laax buñ pare paree yóbbu laayan kër ñooy defar euh, cufaay li joxe laayan ci daat beneen ndabu cufaay indi biir Yoff seddaale même bu ñaari koorite daanam am dund nañ ko dund gu xamantene yenn ay dabor may ne bu waree am ñi yor kàddu yi war nañ ci jima wax ci wa xale dama am ben anecdote moy ci conférence des écovilles et écovillages dama and ak euh, ñaari sud africain ak ben russe bu dëkkoon kër seyna seyna sila seyna isa sila ñuy dox ci tefes gi di xool am naa leneen wind ñu ñëw ba jamalay bon ki ñu àndal commencé expliquer ne non c'est le prophète ma ne non bu légal mana mana ma noonu parce que mana laay ma ne ko non bàyyi rek bul eggali parce que kii boo nekkee prophète da nga dugal boppam waa ji ma ne waa ji sumil say daal waaye ñam moom gars yi ne mana ne bu mu ne ko noonu mu ne mais ici it is clean fii dafa set affaire yi commencé dëkk expliqué fii dañ fiy jullee fii nii la mel ñu dëkk biir laayeen kër yi peinture yi ni mu weexee lu tax mais nit boo ko egsi da nga egsi plusieurs mana ma ne ko ñun après jàmmalaay lañ mana mais bi ñu waxtaanee moom ba xale si waaye dañ ne mais lii ngeen wax ni yëpp kan moo ko créé egg nañ si ba ma nekk man day daana dégg ñu ne dañ ko daa bañ pour yar ay pigeon liggéey bu naawee bon yi muy wàcceel day toñ njàpp affaire mu ne non donc baa bi si boppam nañu nañ oñee baat demaat jàmmale ngeen doo ma expliqué kooku ana waayu nit bu ñëw xëy rek yéeg si kaw day commencé suuf di def ndànk-ndànk mooy li nga wax oota bi il ñu xool l'esprit ba pare commencé si l'esprit moo ëpp njariñ mais des fois ay weeraan ci Sénégal dañ bëgg weeraan kii lii la kii du lii xoolee esprit bi rek après fi ñu bëgg a yegg ñun ñëpp nañ diine ji ñi nga xam ne dañ leen si war a yar bëri na xëy na fii am na ñoo xam ne xam nañ ba pare mais am na ñu bari ñu xamul si biti ñu bëgg xam te booy xëcc nit si li nga xam ne moo baax da koy saisir si fa muy déggee ak fa fibre sensible am nekk ñooñu soo leen di wax ne islaam ak diine ji dafay xëcc ñeneen si civisme si lañu gëm ñom dinañ la fekk ci la nga nek xam moy deug dëgg ne solution ba amul won fe amna fi damay dolli ndax nee nga nañu moytu affaireu tariha ki di wax kala di fenen da fay indi féewaloo foog tam si ñun si sunu way si même man yenn saay bu may doxantu si koor koor gi damay romb ay tante yu bari sopp koor baax na digg doomu si baax na te xam ne xëy na peut-être quartier yi yenn saa yi dañuy jegeyoo jegewaay boo xam ne bu kii takkee microm keneen ki takk microm fee da ngay dem ba dégg si karu kenn cacophonie lay nekk te du loolu lañ si bëgg foog naa kon balaa ñuy xool feneen ñun tam dinañ xool sunu biir loo xam rek saxal digg doomu boobu ñu wax donc ma jox le cadre Diène maa ngi sos sama le ci kaddu yi ko jiitu euh, comme niñ ko gisee thème central appel bi l'islam religion d'équilibre du juste milieu sont les enseignements de Seydina Ali Laye donc loolu je loolu euh, mooy li am parce que l'islam un euh, équilibre et que bu ñu xoolee actuellement adduna bi Sénégal yoof problème yi am yëpp c'est parce qu'il y a un déséquilibre Il y dafa un extrémisme donc au niveau international adduna gi yépp fi mu toll problème mooy nan la régler terrorisme terrorisme buñ ko les acteurs ñi les terroristes ils ne sont pas équilibrés dañuy def extrémisme donc bu ñu toppoon euh, diine rek donc nous ñu dem si état boobu noonu parce que ku ne jullit la nan ngay mën tok ñu dul ay jullit sax def ay bomb dugg seen bir raylé donc il n'est pas équilibré pour aussi diine l'islam diine l'islam bu ñu xoolee au niveau national Sénégal fi mu toll ni Sénégal yëngatu na ku nekk yaangi ngi ku ne yaangi ngi ne dara mën na am te bu ñu xoolee Sénégal dafa am ay charte ak ay institution yo xamante ne moo ñu bu je ko jëlee si état Sénégal am trois pouvoirs une équilibre des pouvoirs est-ce que équilibre des pouvoirs bu amoon ni mu war est-ce que Sénégal actuellement ñun dinañ ci est-ce que bu équilibre des pouvoirs réellement bu amoon est-ce que Sénégal dinañ tiit que ne bon naan jamono yii di ñëw révolution mën na am parce que xam nañ ne Sénégal ku nekk am nga ay loo war def mais xam nañ ne ñun ñëpp que ne am na ñoo xamante ne ñu ëpp doole ñeneen donc foofu déséquilibre bu amee rek problème am na bu ñuy xoolee yoof Séné yoof fii comme ni ko ñu ñi ko jiitu ñi ma jiitu ni ñu ko waxee yoof ay xeet fi am moom ay ndomb tànk comme ni ko maa dema waxee suñu mag ñi vraiment euh, seen gis-gis sori war na trop bu ñuy xoolee comme euh, xeet yi fi am ñoom ñu def de telle sorte que ne xeet bu nekk mu am loo war a falu xeet bu ne am na loo war a falu donc équilibré nañ ba borom ndomb tànk yi fi am donc xëccoo du am ku ku nekk fu nga nekk rek xam nga ne lii nga war a falu donc loolu bu ñu ko toppatoo woon est-ce que problème yi Yoff amoon dina fi am est-ce que loolu équilibré noonu bu ko bu ko bu ko toppoon dëggantaan donc je pense que ne euh, problème yi am yépp du fi am donc di euh, di wax ne euh, thème bi dafa ñëw à son heure parce que euh, comme niñ ko wax al ya équilibre donc loolu mooy mandargay jullit te mooy gay dëkk bu mën a dem donc doon doon sos sama kàddu si loolu lu si dëng nag ngeen xam ne ku loolu njàng la rek jërëjëf si kilifa diine yi rek ñu delluwaat leen si charte kon ma jox kàddu Ndiaye Amadou Ndiaye

C'est Nous suñu demee moment et commencer à nous recentrer Nous wax permettre aux gens de se remettre de recéder un peu les compteurs voilà il y a autre chose que direction bi l'Union bëgg Alors nous quoi de temps en temps nous ñu ici. et sur ce je remercie remercier Livas parce qu'il euh, a eu à insister beaucoup pour le parce que j'ai pas eu l'invitation à attendre, quoi. Moi, là, d'autres projets. Deuxième point de vue, moi, que euh, Apexi aussi, mon main continue d'y dire. Parce que nous avons les d'Orlé. Et là, depuis 1982, comme euh, secrétaire général, je me suis rendu compte que le fonctionnement, lui, à ce niveau, Apexi, bon, il faut aller Tout simplement parce que, il y a des gens

rajim wasalaatu wasalaamu ala imaamillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam maa ngi nuyoo ñi fi toog yëpp defe naa jël nuyoo bi di ko teg ci euh, loxo Cheikh abou Aboubacar Bass al muqaddam mu jotal ma ko kilifa yi fi toog yëpp di jéggalu aussi ci yeexe ñëw bi donc je pense que thème bi euh, euh, dans la mesure où dañu nekk ci jamono boo xamante ne extrémisme yi bëri na exagération yi bëri na te à la base boo xoolee l'islam

jàngal nit ñi ci yan base la ñu war a tegu pour euh, maanaam équilibre mën a am ci relation humaine yi bu ñu xoolee société bi société sénégalaise en général dafa nekk société boo xamante ne mën nañ ne c'est un système interdépendant nit ñi nga xamante ne ñoo dëkk bokk ci société bi ku ci ne da ngay dund di dépendre ci sa moroom man euh, tey am na loo xam ne mënu ma ko defal sama bopp mënu ma wat sama bopp il faut ma dem ci coiffeur bi il faut ma séq moom action bu tax moom mu mën ma fajal soxla boobu donc même ba ci besoin yi dina am besoin te pour ñu mën la ko fajal mënoo ko defal sa bopp il faut keneen defal la ko donc société en interdépendance la donc foofu il faut équilibre am fa ndax bu fa équilibre amulee euh, man bu ma toogee sama côté rek vivre en réclusion mënuma am li ma bëgg donc il faut que sama relation yi may am ak nit ñi respect am si pour que ñu mën a seex euh, lu bëri. donc bu ñu ñëwaatee aussi ba si biir si biir thème bi dañu gis ni que euh, Seydina Limaamu alayhi salaatu wa salaam jàngale na si lu bëri. wax naa ko keroog boo xoolee phrase boobu mu wax ne nañuy bëggante nañu euh, yërëmante nañu soppante nañu nëbbalante ay ayib man damay wax ne phrase boobu rek doy na si jàngale doy na si euh, maanaam ci si si thème bi parce que tey bu fekkee nit ñëpp bëggante nañ foofu euh, équilibre rek mooy am ndax bu fekkee comme ni mu ko waxee mu ne dëgg-dëgg jullit mooy ki nga xamante ne li mu bëggal boppam lay bëggal mbokk jullitam kooku du def mukk dara luy lor mbokk

mais je pense que tay li ñu dimbali ba ñu a euh, xamat qui moy sunu kilifa Sénégal ñu ngi au Sénégal depuis plus de 100 ans ben cohabitation bu pacifique nous avons dégg ñu né problème dégg problème donc bo surtout le milieu comme euh, contexte bi nous avons si milieu bu di nga gis niko tay bo que nous avons nga fekk ay euh, doomu bi amaana boo demee foofu it di nga ko fekk ay nit ñu am ay tour yu xam ne fii ci laayeen la bokk donc ñoom joxe nañ exemple bi wane nañ yoon bi pour xamal nit ñi ne l'islam du religion ku nekk xëcc ci côté religion wu booloo la nekk benn liggéeyandoo lépp mu jëm ci yoonu yàlla may jégalu bu baax ci euh, interview bismillahi rahmaani euh, ñu ngi sant d'abord di gërëm di kontaan ci euh, table ronde bi mais suñu xel dafa dem ci ñaari baat yoo xamante ni sëriñ bi daf ko wax mu wax égalité euh, ñu gis tamit diversité ci religion au niveau du Sénégal donc euh, ñu gis tamit ni ci jàngale Seydina Limaamu comme li sëriñ bi mujj wax léegi nii ne ku si nekk da nga war a yéene sa borom li nga yéene sa bopp donc man je pense ni bu fekkee loolu am na xëccoo war na mën a ñàkk ci Sénégal waxatuma nag fii ci Yoff nga xam ni fii ñoom ñëpp ku su nekk am nga loo wax dañ leen ba ni ñoom ci seeni xeet yi fi am di fukk ak ñaar sax ku ci nekk am na cër buñ la jox kon ko lan moo war a tax ñoom ñuy xëccoo ak a xiyoo ak a ŋaayoo benn te li tax mu bëgg wax lool loolu sëriñ bi laay ñaan mu développé ma ci parce que yàlla dafa ni waxtasimoo bi xablillahi jamian wala tafaraqu fi diinillaahi benn ñaaram ñu wax ci juste milieu euh, mu yàlla di wax ni waxay suma kuntum fa tuwalu wujuhakum satruhu donc loolu foofu laay daanale ma ñaan sëriñ bi mu gën ñaax ci loolu noonu pour ñu mën a xam fan la ñuy teg suñu tànk bu ëllëgee jërëjëf jóg na fii di dolli si li nga xam ne moom lañu ñu imaam Mbaye Bass baaxee wax nañ lu bëri si zakkaat ak ni nga xam ne Euh, laayeen ñi moom lañ koy def mu indi woon tuuti controverse ak ñeneen ñi nga xam ne neneen la ñu gise woon mais daanaka soo seetoo léegi ñu bëri dinañu fekk si li nga xam ne mooy su fekkee ne da nga yéene nit ki baaxe ko sa la nga am teel ko koo jox mu mën a dund dund ko mucc ayib moo gën nga xaar ba daanaka dajale ko ba <laughs> daanaka moment ba nga ko koy jox du ko soxla zakat comme innovation ñëw nañ ci diggu doomu bi bu nga xam ne indi nañ ko sax ci euh, jigéen góor nu nu war a dëkkee sotti seeg def ci kenn ku nekk nag jël sa cër ba nga xam ne moom la la yàlla jox nga bay si sawaar ba euh, famille bi mën ko jariñoo wax nañ fi tam lu bari jàlloo euh, wax na fi foog naa tënk na lu bëri te Imam Mbaye Bass dina si ñëwaat le thème de solidarité et de civilité ñëw na lu bëri si kàddu euh, euh, jàll mais ñeneen ñi wax nañ ko junjun nañ ko xeet yi yoof ñuy dundee en solidarité à travers les xeet famille yi nga xam ne ku si nekk danga dañ la cëral dara pour bàyyil keneen ki leneen foog naa day contribuer si équilibre ak juste milieu danaka dal si tënk mais aussi extrémisme bi nga xam ne moo am sur les choses à bannir parce que benn objectif dafa ne woon li ñu war a taxaw ak li ñu war a éviter ñu bëri seet nañ ne extrémisme supériorité ak yi nga xam ne mooy isme yi nga xam ne moom la mon frère euh, Sidi Sey wax yooyu yëpp lu ñu war a éviter la donc daanaka ay contribution moo ëpp mais am na poñ yoo xam ne xëy na damay bàyyiwaat imam mbay Bass mu indi si leeral dool synthétiser daanaka ponk yi ñu may xamal ne su loolu weesoo dina dinañu def remise euh, appui yoo xam ne organisation partenaire yi nga xam ne ñoo bokkoon ak APEX si mbir mi am na ay lu mu leen bëgg baaxe walaa ñoo tëj merci. tënk yëpp tënk nga ko macha allah ci tënkin bu rafet ndax euh, li ci jib li ci ëpp ay contribution la muy contribution yi ci lu lool macha allah euh, yoo xam ni dafa yokk suñu dégg-dégg ah, yokk suñu xam-xam ah jotaay nag loolu lay jariñ euh, donc enrichissement mutuel la jotaay bi xanaa rek benn point bi wax daan ju wax ju wax yàlla wax waxtasimu bi xablillaahi jamian wala tafarraxu Seydina Limaamu indi ko indin bu rafet ndax moom daf ñu tënk ci yàlla muy laahi e ne nañu bàyyi sunuy cosaan di ko tiitaroo ak muy indi tàqalikoo ci sunu biir kii ne maa la gën ndax nangam kii ne maa la gën ndax nangam mu ne ñun ñëpp nañu bokk benn cosaan muy laahi moom laa wax ci sama yenn taalif ma ne ko yow day biddaa amul ci sa diine amul boddi xeet kon boddi wuñu kenn san ñëpp euh, biddaa amul ci sa diine amul boddi xeet ñëpp sant filaay bokk jaamu rahmaan tey ci suba maa ngi woon ci benn institut supérieur bu mag boo xamante nii euh, dafa regroupé euh, mën naa ni daanaka les les états de la de la CEDEAO donc ngir. Il faut développer un thème sur le sens de l'appel de Seydina à Mahdi alayhi salaatu Il y a le ni 90 c'était des étrangers ivoiriens nigériens dama vous dire lan mooy le sens de l'appel de Seydina Limaam Je ma dire euh, delloowaatee kaddu gi amul ben refus wala ben polémique bu ku ci jël kaddu da nga rafetlu ndax dama indi enseignement Seydina point par point point par point Donc, a daaneele nag ci ki indi il ne peut être qu'un messager de Dieu et ce messager de Dieu là était annoncé kon waruñu focaliser wu rek ci ni ma ko waxee qui ci le statut du Mahdi kooku mbiram la ak boroomam moom la wax ne walillahi al amru wali ولعزتي ولله الامر ميرمي دو موم صاح والله دو موم نينا يونتي بي صاح لي مو خام تي مهدي يالا مكو كو خمال ابشركم بالمعدي يونتي بي خينا اي سابام ابشركم بالمعدي ما نغي لين دي بيغال كون بو ميغي دوغو جوت نوفل بي موي نوفل بو نيه تي موم يبحث في امتي خلال يالا دي نكو يوني تي سونو خيت كون nga gis ne li am solo mooy lii nous ñëpp ñu ànd valeurs communes faire avancer l'humanité Et polémique lay ñu tere même polémiquer sur sa personne même polémiquer sur sa personne li ñu indil mooy bëggante fa inna ahla li mu ñu indil na ngeen mbokk il nous demande à être beaucoup plus exigeant sur nous-mêmes que sur l'autre. daf nañu le eh, xoolal bëtu pardon c'est-à-dire xoolal la création de Dieu chez l'autre waaye nag na nga tout na nga le sa borom na nga na nga def lan deux nafs ton combat c'est pas avec l'autre mais ton combat c'est avec toi-même l'introspection donc lii la oui un muy ay valeurs yu àdduna soxla mais mooy ay valeur yu àdduna soxla te yàlla ni dama inspiration bon am appel bi jib opportunité def nangam nangam un institut supérieur pour ne pas la plus prestigieuse du Sénégal il <laughs> fa nekk di étranger moi, j'ai fait un exposé sur le sens de l'appel. Et je veux garder l'anonymat pour <laughs> le respect de cette institution. On avait envoyé une <laughs> demande d'explication. ndax dafa lié ak seen i béréb yële kon ñu gis ne nous tabarakallah message de bu àdduna soxla kon avons bu APEXI lëngoog adna nasiix ak ñeneen di liggéey ngir valeur yooyu àdduna jot ci donc pour que moo ñuy garantir garantiral un monde de paix donc nous devons tous s'engager

asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. wax la ko mooy que ne fi mu nekk ñun ñi jàngale mi si biti la jëm. si comme ni nga ko waxee. Mhm. ku nekk koo xam ne fa ngay déggee. Mhm. ma ma jàngal la fa ngay déggee. yenn saa yi dafay am ay question yoo xam ne xam nga ñoom rek ni ñuy jànge man damay liggéey ak américain yoo xam ne ba ñu xamee ne caw laa sant. ñu ne famille laayeen la bokk dañ may laaj laaj yoo xam nga américain rek ni muy laajee day jéggi dayoo mais foog naa diine ji war naa jóg si mhm. def benn site xam nga ku mhm. nekk nag ak na muy jànge ñoom bu ma leen joxee lien ne la demal fii rek dina fa dem ba dellu si waat ñu amee waxtaan mais soo duggee si site yi ñu lay jox yëpp daanaka yaa ngi fay fekk si kër bi moom daan baax na gaa waaye du mooy jàngal kooku la mu soxla euh, euh, moo juróon kii kii moo ko commencé woon ba mu ñëwee fii dem fee weesu nan ko fi mu nekk nii lan la ñuy enseigner ñi fi nekk fii ak ña nekk si biti ba wan leen ne diine ji kat mu ngi prôné loo xam ne képp ku nekk si àdduna bi rek war nga koo dundee donc loolu war nañ si liggéey bu baax parce que euh, du du ñëpp ñooy mën a taxaw ak yow nga wax leen ko waxeen bu leer boobu mais bu ñu amoon fenn fu ñu fuñ ñu delloo pour que ñu gëstu fa mën a jàngal ñeneen diine di jóge gën a law jërëjëf kon léegi dama fi am lu ma ci dalale sa xel rek jërëjëf te <laughs> loolu nga wax dafa am solo te loolu it suñu souci la maa ngi doon def i conférence euh, je crois dimanche passé sur un thème l'internationalisation de l'appel de Seydina Limamou Laye kooku boo demee ci YouTube di nga ko gis et te thème bi bi ma koy def dama ko séq ak euh, président Baytir Kane le président de l'association des professeurs de français d'Afrique donc euh, ma def wolof de mu def français yàlla daf ma nattoo Je tukki lu bari je suis euh, États-Unis mbokk suis invité Je suis nous dëgg la fi ñu sens amul impact discuter échanger trouver format. On a fait une conférence à l'université de Ohio. J'ai tenu ma conférence en anglais sur Islam et Social Justice. Nous invité un Américain pour connaître Bohamni. Il a écrit, il a fait sa thèse sur Sayyidina Ali Mamoulaye. boo xoolee am na site almahdi point org ñu écrit ci donc mën nga retenir site boobu ñu ngi traduire en anglais boo xoolee taxawal nañ réseau un réseau très dense boo xam sa regroupe que des sommités le réseau c'est sur l'internationalisation de l'appel de Sidna Ali Mamula il Mahdi Et vraiment nous avons de focus et traduire alors City en anglais Nous avons une équipe déjà vraiment alors équipe beaucoup nous ngi ci euh, ñu et c'est l'occasion m'inviter invité al al-sad ndax mercredi réseau bi am na nu waxtaan fii ci centre bi Baara euh, Baara Baara Samb dans son centre là réseau bi parce que am na ci ñuy jóge France ñëw appel si ñuy jóge États-Unis alors donc ak euh, mercredi à 15h30 réseau boobu am na fa waxtaan sur l' internationalisation de l' appel de Sénalimam. man miy tukki dama naan wallahi yàlla seede na ko waaw ma ne xanaa bàyyi laay Sénégal rek la ko nit ñi weddee fépp foo dem ci àdduna di wax message am nañu koy accepté yow da lay yéem sax maanaam daf fay yomb ba nga xam ni alors bu ngeen ko xoolee ren ci euh, appel bi dina am journal buy génn ci Soodaan un français Pierre Masson Pierre Ousmane alors donc boo xam ni bi mu jëlee wér dëgg léegi bi ñu yàlla dajalee ba mu bokk ci diine ji ça fait même pas un an mais li muy développé seen aliment moi j'apprends beaucoup beaucoup beaucoup de lui ma ne ko tu sais bu ma la ko waxee ce sera une très grande surprise pour toi mais tu dois enseigner à la communauté laayeen parce que lecture bi mu am ci sermon Seydina Limamou yi ñun amuñu ko ci il a ramené le niveau très très très très haut rek yàlla xam na ko donc bu ko defee fa tabarakallahu yàlla nañu yàlla jàppale et ba àdduna ñëpp am jàmm ndax c'est ça le message de Seydina Limam. que les gens vivent à paix que les gens s'aiment euh, son message c'est de combattre l'ignorance c'est de combattre la haine et c'est de combattre euh, la pauvreté lii mooy njàngalem Seydina Limam mooy dafa tënku ci ñett yi leneen li ci def lépp ci yow lay dellu wérd bi yow lay defar julli gi su ruux lay sellal su ruux lay laabal mais njàngaleen yépp dafa tënku ci defar société bi ci xeex fi ignorance xeex fi pauvreté xeex fi en ndax haine mooy entraîner violence asalaamaaleykum wa rahmatulah